conclusion majeure bi mooy que ne Fatou madame Astou Sokhna ñu ngi ko tuddee décès maternel évitable mooy que ne gannaaw ndogalu yàlla woo nekk na loo xamante ne waroon nañ ko mën a donc saafara waroon nañ ko mën mooy expression tubaab bi mooy dañ ko considérer comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation du risque c'est-à-dire bu ko toppatoo woon bu baax ci diagnostic bi évaluer risque bi ba pare surveiller ko bu baax gannaaw suñu borom astu soxna doon na mucc si situation boobu nag il fallait que ñu jël ay décision décision bu njëkk bi ñu jël mooy que ne ñu suspendre directeur u hôpital bu ngeen seetloo conseil des ministre bi ñu def démb jël na ndogal boobu pour dindi directeur hôpital bi indi fi beneen directeur bu tudd Abdallah Gueye en parenthèse d'ailleurs Abdallah Gueye boobu maa ngi ko fekk mu nekk directeuru hôpitalu Pikine bi ma fi ñëwee en 2017 moo nekk directeur hôpital Pikine ba 2021 mars 2021 mai 2021 plutôt moo indi ko fii mu ñëw renforcer nouvelle direction générale des établissements de santé bon nag euh, loolu c'est une information extrêmement importante parce que 2017 ba may ñëw fii laa ko fekk mu nekk directeur u Pikine te mu ngi fi jógee il y a pas longtemps en mai 2017 ma indi ko mu renforcer une nouvelle direction générale ba xamante ne maa ko fi teg compte de sa compétence et de son sérieux loolu élément d'information la pour quand même mettre de côté yenn fake news yoo xamante ne des fois mën na jaxase xel nit euh, beneen décision bi ñu jël mooy si biir hôpital bi képp koo xamante ne agent la te nga newoon si dispositif bi xamante ne moo doon toppatoo astu soxna ñu jël la dugal la si benn procédure boo xamante ne disciplinaire boo xamante ne hôpital bi moom moo koy euh, conduire ni nag hôpital bi dana xool seen biir procédure boobu mën na dem jusqu'au licenciement parce que en vérité li ñu def dafa débouché si donc faat bakkan beneen élément bi am solo te ma bëgg ko note mooy que ne li xew ci wàllu Astou Sokhna nekk na lu senegal lépp ñaw nekk na lu ñu regretter ñun ñëpp nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla donc du luy taaral suñu système waane ndëkk ñu note ne système de santé bi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ñu ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la surtout ci temps yi passé renforcer nañ ko considérablement mais ay euh, jigéen ak ay góor ñoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk nekk ay agent de santé di liggéey liggéey boo xamante ne liggéey bu Sénégal yëpp rafetlu daa mbir mi metti na mais occasion la pour man tam pour que ma ñaax leen ñu gën a jàpp seen liggéey parce que seen taxawaay Sénégal yàgg na ko rafetlu may noté tam pour terminer que Sénégal dafa def ay performance yu am solo ci wàllu mortalité maternelle et nataal mooy xayma bi xamante ne dañ koy xayma réew yi di xool ban réew moo gën a am situation yi ñuy dund tey mooy jigéen bakkanam dem ci wàllu donc njur loolu ndëkk dafa nekk indicateur OMS indicateur bu am solo Sénégal nag tey si sous région bi UEMOA moom moo fi juutu si indicateur boobu moom moo fa gën a nekk si kanam parce que 2019 ñu ngi doon tourner si indicateur boo xamante ne cent vingt 386 naissances moo euh, décès pour 100 000 naissances vivantes la mais en quatre vingt euh, en 2019 ñu ngi si 276. décès 236 décès pour deux pour cent mille naissances vivantes gis ngeen ne évolution bu am solo am na foofu bon nag nañu continuer effectivement ci effort yooyu mais ñu ñaax personnel de santé bi ak d'action sociale ñu taxaw pour que performance ak njàmbaar bi leen réew mi yëpp xamee ñu continuer ko may terminer ci benn élément d'information bu am solo parce que en plus effort yu ñu def ci ressources humaines yi dañuy continuer di def ay effort tam si li jëm si jumtukaay yi ak structure de santé si cadre boobu laay annoncé d'ailleurs que ne l'hôpital Aristide Le Dantec projet wu état bi sur instruction président Macky Sall mooy que ñu tabaxaat ko totalement loolu tam élément bu am solo la te si ay fan yu néew danañu effectivement donc am benn rencontre boo xamante ne certainement chef de l'état moom moo koy diriger pour que ñu xool yan modalité la ñuy jël pour que reconstruction hôpital Dantec ñu mën si gaaw nu mu gënee donc loolu daal laa ne woon danaa leen ko indil di leen remercier encore une fois di wax ne nos services sont à votre totale disposition ici au niveau central comme au niveau des structures pour indil leen toutes les informations qui concernent le système de santé maa ngi leen di